asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Modou Mountakha ñu ngi lay nuyu te di la siyaare bu baax si turu Serigne Amdi Fall sa murit boobee di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di la jottali ab nuyoom di la jottali ay cantam ak i ak ñaanam kaddu yi nag ñu di ko jibal si turu Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mi toog di jëwriñam mu tànn ko teg ko si kanamu njaboot gi mu ànd ak njabootuk Cheikh Rafal gépp nu teew fii mboolem buntu kër yi nga xam ne ñëw seq kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñëpp seen i jëwriñ teew nañ wala seen ndaw yi jëwriñ teew nañ ñësës sa ñoom gannaaw ba nga xam ne ndigal lii nga xam ne moom la sëriñ bi mujj a joxe mu jëm si njabootu Cheikh Fall gi te jaar si sëriñ am Amdi muy ndigalul ñu soññente si lu gën a sàmm war may Touba muy dëkku sëñ Touba bi nga xam ne am lu moom ak sàmm war may njabootu sëñ Touba gi. ak it waggar kaddu sëñ Tuubaa gi di sa kàddu gi ndigal loole ba mu agsee fi sëriñ bi dafa daal di woo njaboot gi yëpp ñu teew mboolem ku bokk si kër maam Cheikh Fall mu daal mu jottali ndigal li xamal leen nag ne leen sëriñ bi moom li mu bëgg faw day am kon lii sëriñ bi bëgg nan ko ko defal ñu daal di tàkk aw yoon mu tànnal ñu ko mu ne nun li ngeen di njëkk a def mooy na ngeen ma wëral mboolem ku bokk si njabootu sëñ Tuubaa tàmbalee si jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi ne toogal fi sëñ Tuubaa ak mag ñi nga xam ne dañu fee toogal ay mag ñi àndoon ak Cheikh Fall si ëttub Sëñ Tuubaa di liggéey ba sàkku di sàkku ngërëm nangeen ma demal si ñoom fenn fu ne ngeen yaatalal ma fa ndigal li te sàkku fa ñoom ak jàppale si lii sëriñ bi bëgg nu am ko loolee ban sa jógee lanu lanu tànn ay ndaw boole noog sëriñ Assane mii nu dem si mboolem buntu kër yi rek muy sa buntu kër yi rek dale si kër Cheikh Modou Moussa Mbacké fenn fu ba nu fa demee yóbbu fa kàddug sëriñ bi xamal leen ne leen sëriñ bi de lii mu digal sëriñ am di di sëñ Cheikh Ibrahima Fall xam naa dafa day ndigal lu nu yeesal waaye ndigal li moom naka jëkk Cheikh Ibra moom mooy baatu mooy baabul muridin ndax ñëpp nangul nañ ko ko kon nag bu nu demee ba jamono demee noo xam ne ñenn ñi am na lu leen këf war na nag ñu dellu siwaat nag dellu siwaat taalibe yi si li nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi muy ak taalibe te sëriñ bi li mu bëgg mooy wet gu ne ña fa féete dollee farlu dollee góorgóorlu ba li sëñ tubaa bëgg si dëkk bii la taxoon mu sos ko ak lii mu nu fi bàyyil muy ndono muy alal joo xam ne ñëpp bëgg nañ ko te sëñ Tuubaa rek ko am ñu waggar ko sàmm ko ba dara du ko ruur dara du ko yàq waaye fenn fu ñu si dem rek am nañ fa kàddu yoo xam ne kàddu yu yéeme la ku nu dem rek danaan ñoom amu amuñu benn baat benn baat rek a fi am te Cheikh Modou Mountakha rek a ko yor wax ne ñoom dégluwuñ kenn nee na dégluwuñ kenn soxluwuñ kenn loo digle rek fas nañ ko yéenee def. loolu jëwriñu sëñ Tuubaa yi sa sa bopp gi ñoo ko seere ñoom ñëpp kenn desut dale si sëñ Ahmadou Mokhtar mi nu njëkkee ba fii nu mujjee démb di sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Khadir bi nu fa bàyyi koo topp nañ kër yu mag yi nga xam ne dajaluñ sa Mbàkke ndax dajal moom mënuñu ko sa njaboot kenn mënu koo dajal waaye nag ab tàmbali rek la waaye fenn fu si dem ñoom ñoom de li nu njëkk a gis mooy moom sëñ bi loo leen faggulaat muy dajale goo dajalewaat nag sa njabootug bopp gi di njabootug sëñ ndax kër yooyu nga xam ne kër gu ne la fa nekk sëñ tubaa ko fa def kenn ñu ñu siy dund ba di si dundal ñeneen xam nañ ni ñoom li nu am sëñ Tuubaa rek la te fu li leen ko may mooy yoonu ak taali bi rek te taali bi moom Cheikh Fall la ko jàngale woon moo tax ba nu fa tàbbee am na ñu am mbégte lool bari na si ñoo xam ne bañ demee teraanga yu rëy rëy la ñu defal si mbégte mu nu am si ne kër Cheikh Fall njabootu Cheikh Fall tey bu nu agsee fii Euh, wax ki diggante yu yaato yaatu yoo xam ne nettali nañu ko kër sëñ Modou Khary Niang ba si Lansar fenn fu ne dem nañ fa waaye tew tawféex rek lan gis ñoom ñëpp wax ni ñoom day jaajuwaat nañ bu baax a baax njaboot gënu yilifit wax nañ jox joxe nañ kàddu ñu soññi njaboot gën yilif si biir réew mi ak fépp fu am murit ne ndax jàpp nañ ni fu murit nekk rek yaa ngi si sa biiru Touba kenn ku ne dellu nag jaajuwaat farluwaat si njaboot gi nag muy soññi njaboot gi góor ñi ak jigéen ñi waaye ak taalibe ñi nga xam ne seen yaakoor génnu sëñ Touba nu xam ne ñun li nu am weesuwul sëñ Touba li nu am moo weesuwul baatub sëñ Touba muy sa kàddu gi waaye li nu am weesuwul dëkkub sëñ Touba bi nga xam ne lu mu am rek si dëkk bi la ko la ko la ko la ko yéene mu fi la ko jooyal loolee ñoom ñëpp maase nañ wax ni liggéey bi day du du jàpp nañ ni sax du doon luy metti ndax wet gu ne fa féete nee na fas na yéene ba moom fa mu féete dana jàpp ak wetam ba dara du sa booy ba tax loola loola nag lañ ñëwoon di ko gaaral ci sëriñ bi dem nañ si eh, ñii nga xam ne ñoo jiite quartier yi ndax bi nu ko seetee mat nañ ñeenti téeméer yu yu yu manqué tuuti am na si ñoo xam ne seeni jëwriñ woo nañ leen day def ak ñoom ab jataay xamal leen lii xew lépp si biir gox yi lay xew te gox yi ñoom ñoo fa ne jiite njaboot ga fa ne ñu xamal leen ne lii sëriñ bi bëgg ñoom ñoo si mën a jàpp muy soññante ba ñuy soññante si seen biir ak labirante ga si daayira yeeg daje yi ñuy am ak xew yi ñuy am ñu sàmmonteeg bëgguk sëriñ bi ba sëñ bi du fi dégg dara loo xam ne lu ko lu ko dul neex la ba ñoom ñëpp ñoom it jaaju nañ si bu baax a baax fas nañ yéenee teg yoon yoo xam ne danañ si ànd liggéey ba ba ni ko sëñ bëgg mu amee ko ni dem nañ sa police ba fekk fa commissaire moom it waxtaan nañoo moom xamal ko ne ko sëriñ bi day bu yàggu dara rek woo woote na am ndaje jël liggéey bépp teg ko seen loxo kon nun ñëwunu sëñ bi sant nuy fitnaal kenn sëñ bi lim nu sant mooy nu laabirante ak suñu bokki taalibe yi ba li sëñ Tuubaa bëgg si dëkk bi mu am ko laabirante googi nag si lañ fas yéenee sax waxtu nu doxee ba dajeeg nag koo xam ne gantal na loolee te tegu ko luul si bakkanam bu boobaa daanu ko jël teg ko si seeni loxo yéen ñi nga xam ne yéen la fi sëriñ bi teg ngeen ngeen yor yoon tey jii lan mujjee si commande na capitaine bu mag bi nga xam ne moo jiitee muy capitaine Wade fa lañ bàyyi koo jëm si fii jaar ko sëñ Dame Diané soog a si fii moom it kàddu yooyu lañ wax ak moom fas nañ yéenee dem si préfet ak sous préfet ak yeneen bërëb yi nga xam ne des na ngir nu nu mën koo mottali waaye nunu ko sëñ waxe woon rek ñu sàkkoo nu teew fii tey nga sëñ bi gën noo dolli sëñ bi gën a dolli tali bi nu xam ne liggéey bi yaa ko liggéeyloo maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootug Cheikh faal gi yaa woote jox sëriñ bi ndigal mu woo ak njabootam sant leen ko fas dañu yéene nag dox si doxin woo xam ne doo si dégg mukk lu la naqari doo si gis mukk loo xam ne loo loo lu wuteek sa bëgg-bëgg la te am nañ yéene pas ni nga bëgg dëkk bii mu mel ni ak njabootu sëñ tubaa gii ak sa njabootu bopp gii ni nga bëgg mu mel ni dana ni mel kenn mënu si lenn li sëñ Tuubaa bëgg day am te yaay sëñ tubaa loolu mooy kàddu yi si ak gàttal njaboot gépp a ngi nii nag jox ma kaddu gi mu diis loolu waaye nag Mbàkke ñu ngi sant bu baax Mbàkke sëñ sëñ bi nee na lii amul sikki sàkka si ne lépp sëriñ bi rek la nee na danoo dox ba agsi si rek waaye mooma nee na alhamdulilahi rabil alamin nee na am na mbégte mu rëy rëy moo xam ne menn mbégte mënu koo mënu koo dab nee na li si gën a doy waar nee na si lii la moom sëñ bi nee na xawoon sax jotaay bi dina am. ni mu si xëyee. nee ni mu si dama eh, seet ne. nee na dafa seet ni. sa doxin yu njëkk ya. sa doxin yu njëkk ya. kilifa yi. kilifa yi. dañ daa jéem a musal seen bopp. dañ daa jéem a musal seen bopp. nañ ko daa musale. nañ ko daa musale. mooy ay tata. mooy ay tata. tata yoo xam ne. tata yoo xam ne. am na si yoo xam ne. am na si yoo xam ne. bu noon yi ñëwee. bu noon yi ñëwee. mën nañ faa am ay weer. mën nañ faa am ay weer. te duñ mën a dugg fenn. te nee na loolu doxinu adduna la. nee na la sa daa am nag. la say maanaama. nee na mooy dox. moom rek ay dox. si coobare sunu borom. nee na fabu gi nag. faggu gi faggu gi. nee na am na yàqin si ne. lu mat a fàggu nee na sëñ bi fàggul nañu ko te jubóo na seeg moom lu mat a ñaan ñaan nañ ko ñaa ñaanal nañu ko te borom nangu na ko alhamdulilah bi àll bu fekkoonte ne kon xel mën naa dal si àdduna nee na suñ xel na dal mën na noo tëdd nelaw waaye nag àdduna moom coobare sa borom si coobare sunu borom dafa am nu muy doxe mm-hmm. noo xam ne yëngute yaa ngi si biir te doomu aadama nag te doomu aadama nag moom dafa am ak doyadi te nee na doomu aadama nag moom dafa am ak doyadi doyadi doomu aadama moom lañ koy tuddee moo tax nag faggu mënta ñàkk ma xëy li mu ci xëyee. nee eh, li mu ci xëyee. dama joxe ndigal. dafa joxe ndigal. ci ci matlabul fawzeyni. ci matlabul fawzeyni. mag ñi làkkub Tuuba lañ ko tuddee woon. mag ñi làkkub Tuuba lañ ko tuddee woon. mu bëgg nag loolee. mu bëgg nag loolee. ñu jublu si. ñu jublu si. di ko fas yéene koo jëfee. fas yéene koo jëfee. nee dafa joxe kuréel boo xam ne. Eh, bis bu nu xëyatee. bala noo def dara. nanu la jàng Matlabul Fawzayni te njàngin wa nag nan ko seet bu baax a baax na mu gën a nasoo na mu gën a neexee nu di ko ni jànge alhamdulilah rabbil alamin loolu nu am ci pas-pasub ne la si suñ kem kattan ñu jëfandikoo ko mu am ci pasteefub gën a aar ah, kaaraange goo xam ni Sénégal xaj na si. julli yëpp xaj nañ si. alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi nee lool joxe na ah, si ndigal. nee na loolu bu si joxe ndigal si suba si. jotaay bii am. nee na loolu du moom nee sëñ bi rek la. jërëjëf Mbacke <laughs> alhamdulilah nee na gannaaw ba loolu wéyee. kaaraange mënta ñàkk. te ku ne xam na ni maam Cheikh mooy kaaraange ak yoon wi loolu ku ne xam na ko ndax moo ko jëkkee woon muy dox ba jamono aksi fii doxinu jamono nag day soppiku kon nag na gën a leer kaaraange gi si dëkk bii tey gën nañ leen ko dénk gën nañ leen koo dénk gën nañ nu koo dénk nun njabootu Cheikh Rafal la si gën a metti nag mu gën a metti sëñ bi gën noo naqari mooy politique si dë biir dëkk bi loola nañ ko jaare si aw yoon waaw waaw sëriñ bi nee na dëkk bi liñ ci gën bañ mooy politique mën na noo seet feneen fu ñu koy defee nag waaw waaw <laughs> nee na sëriñ dëgg la Mbàkke du ko tudd waaye Mbàkke ngi fi waaw <laughs> nee na kon loolu moo jiitu nee na kon liggéey bàngoog waaw sëriñ bi nee na li ma waroon a wax lépp dugg na sunu biir yi wax nee na dégg na wax ji bu baax nee na noonu dong la demee kon kaaraange ga nee na mu ngoog lan ciy war a dolli moo di lépp na ànd ak jàmm alhamdulilah rabbil alamin loolu buñ ko waxee ku ne war koo dégg ku ne war koo gëm sëriñ bi jóg na liggéey liggéeyam bii muy liggéey bu rëy borom boole koog noonu yu am doole noonu yu bon a bon noon bon noonu yu soxor a soxor mu ànd koog ñoom ba gongi koog ñoom dellu si fii si dëkk bi ba mi ngi fii si dëkk bi te xat demut te xat demut benn toq deret tuuruwut nee na benn toq deret tuuruwut nee noonu liggéey baa ngi noonu noonu la ko fi bàyyee nee nañ liggéey te liggéey bi rafet liggéey bi sotti liggéey bi wér te jàmm rek ay xew noonu la ko sëriñ bi liggéeyee kon doona laa ngoog nan ko doon rek te jëfe ko noonu nan fab sunu lépp def ko si sëriñ bi <laughs> nee na xam loolu moom yéen waaye xam na ko waaw jërëjëf Mbacke. nee na da ko wax nii rek waaye xam na ne nun ña nga sax waaw. nee na kon suñu yitte jëpp. suñu xemente bépp. suñu jublu gépp. lépp nay sëriñ bi. Hmm. nan ko xool rek. buñ xool gis dara si dëkkam bi. mel ne kuy fetal rek boo gisee leneen lu rab ngay diir boo gisee leneen rab bi ngay diir doo jam dara kon alhamdulilah rabbil alamin ndokk bi nga xamee ne lii sëriñ bi rek la xam na ni moo ko santaane waaw jërëjëf Mbacke kon mënatu la ñàkk kon kaaraange gàngoog nee na baatin bi moom sëñ mi noppi na si waaye saar si nag nee na dénk nañ nu ko lépp nag itam lu si mat a teg si yoon daanu ko jaale si yoon teg ko si yoon ba nu mën a dox nam gën a rafete nam gën a ëpp njariñ loolu nekk la demee jërëjëf Mbacke <laughs> <laughs> waaw gannaaw nee na sëriñ bi rek mu ne see doole dara Mbacke waaw wallaay Mbacke alhamdulilah Mbacke nee na ginnaaw dafa joxe ndigal muy ndigal lu rëy a rëy si Matlabul Fawzayni te te yëgul woon lii dina am jataay bi dajeeg ndigal lool yi nee loolu sëriñ bi rek la kon nag jërë ngeen jëf mi ngi noonu rek kaaraange gàngoog seen kem kàttan xam ne nuñ ko bëggee rek daan ko ni amee alhamdulilahi rabbi alamin alhamdulilahi mbakk nee lu si dool dana ndax lépp wax naa <laughs> waaw Mbàkke waaw lu si des rek incha allah daanu ko toppaat ba mu gën a tege siw yoon ba nu gën a mën a def sunub liggéey voilà waaye li gën ñor sëriñ bi mu jóge si dëkk bi mooy politique waaw na na fi dem Mbàkke ko fi dégg de waaw waaw nee na yooyu yëpp itam mën naa génn dëkk bi waaw wallaay eh, eh, Mbakke waaw jërëjëf waaw waaw waaw <laughs> jërëjëf Mbakke jërëjëf Mbakke waaw sëñ bi nee na nee na xolam waxul sedd na waaye toj na <laughs> waaw si nee na si jotaay bii Abibu waaw waaw <laughs> Abibu Mbakke sa moom sëñ Fallou dañu faa dem ngir taxawaay bi mu am si liggéeyu sëñ Tuubaa bii ak jàpp gu mu ak ñor gu ko liggéeyu Cheikh Fall bii ñor nga xam ne lu sëriñ bi masane rek ñëw na ànd seek noonu liggéey yi nga sant sëriñ bi yëpp bu nu ko bu boo ko bu ndigal li rotee rek mu ne lu Tuubaa si kanam am si jumtuwaay na ko daal di yóbbu teg ko si loxol ñabatug Cheikh Fall gi booleeg di togg ay ñam saa sune di indi moo waraloon bëkk démb dem nañ si sëriñ Abo waaye nu ne nañ fa dem ndax daam cëru boppam ci liggéey bii barki démb ba nu fa demee mu mu daal di génn ñaari junni daal di jox sëñ Assane mii ne ko damay ñaan ndigal si sëriñ bi nun nañ wut téeméeri junniy murit ku ne joxe ñaari junni nee na mu doon milliard ñu jël ko def ko fond boo xam ne si lañuy ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa li mu bëgg si dëkkam bii si oto yeeg oto mbalit yeeg oto yi dox ak oto yi sàmmak ak di wattu mu ne sàkku naa bu ngeen demee fi sëriñ bi ngeen dimbale ma jotalal ma ko loolu <laughs> te te du yàq leen nit si si liggéey ba mu ne <laughs> waaw sëñ bi boo waxoon loolu am ndigal itam nag ni nu ko séqal ñu waxtaane ko ak ñoom te ànd sa ak ñoom ci lu koy defar lu koy yombal ñu ànd sa ak ñoom lu mel ne tey bu oto bi ñëwoon war a ñu bañ a wotee si biir dëkk bi bañ a réunion si biir dëkk bi bañ fee wotee incha allahu mbakke bu soobee yàlla dañ koy ànd ak ñoom ñu jàppale leen ba lépp tege siw yoon waaw incha allahu waaw nu génne bureau de vote yi waaw waaw waaw waaw ak sa waaw waaw sëñ waaw sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng mu ne li baax li sëriñ bi bëgg nee na lu baax li sëñ bëgg nu bëggal nee lu baax rek nga bëgg Mbàkke te moom nga nu bëggal waaw waaw waaw waaw Mbàkke waaw ni ñaan si doole Cheikh Fall sa sa borom yàggal la lool waaw na fan wi doon aw doj waaw noo bëgg a jekkoo liggéey sëñ Tuubaa bi ya eh, ngi ñaan si doole Cheikh Fall yàlla na ko jekkoo noonu barkeb sëñ Tuubaa ak Cheikh Fall nee na mbirum suñ boroom day mel na lu dul gaaw si coobareem nee na ni mu ko waxee rek nee na Cheikh Rafal kaaraange si moom la jëkke si la nekkoon nuy ndox ba si fii tey <laughs> waaye nee na genn jublu gi la rek bu nañ koo yeesalaat si nun kon buñ koy yeesalaatee si nun nee na mooy lawoon rek nu xamee ko noonu rek te téye ko noonu doxee ko noonu di wéy di wéy di rek topp sëriñ bi rek alhamdulilah rabbil alamin wa tasrifi salaatan li